rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokki julli yëpp mbokki taalib yëpp di ndokkeel ci bis bu tàdd bi nga xam ne bisub yiw la bisub ngëneel la bisub ñaan la bisub dellu ci yàlla la loolu ma tudd nag muy ñaan dafa nekk lu am solo lool ci lislaam dafa bokk ci jaamu yàlla yi bokk ci jaamu yi nga xam ni itam yi gën a màgg la bokk suñ mu digle ko euh, wax ne su ngeen ma saa bi ngeen ma ñaane may leen adon nii astajib la ko ñaane may leen wax ñu saa su ne ko sa saa bu la sama jaam ñu laajee anama nen fa inni xaribun ujibu daa wa daay isa daa ni ko jege laa lool saa buñ tàlli seen ndox bu ñaane ma may leen ñaan itam nekk ngànnaayul jullit ni ko yun saa adduha usilahul mu'min nekk lu amal njariñ kii dund ku faatu e, ak kii ñaan ci boppam noonu ko Sëñ Tuubaa waxee ci Masaalik ne id du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'ul hayya wa yujibul ujur ñaan dana jariñ ku faatu ba ne ci dana jariñ kuy dund dana jariñ di koy dana am njariñ lool ci kiy ñaan-ñaan gi itam kon jaamu yàlla la waaye dafay laaj nag ki koy kiy ñaan toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala toroxlu wàcce boppam dellu ci yàlla al inaabatu ilallaahi dafa bokk ci sarti ñaan yi tax suñu borom nangu ñaan mooy nga dellu ci yàlla ba noppi ñaan am gi mu am sol na moo tax seemadu Muntaxaa mi nga xam ne yërmande kese la an dafa doon la Sëñ Tuubaa waxoon ne allahu yansuru nii wal xal wal xal tatbaxu nii fil bal wal baxi zanafin bi laa dari loolu da ko da ko da ko niiru Sëñ Tuubaa da ko ko donn yërmande jooju mu yërëm njam ñu nag te ku ne xam ne jamono tol na foo xam ne xat-xat yi bari na jafe-jafe yi na jàngoro ji mooy corona faatu gu bari gi tegaloo ci fan yi accident yi lu ne nga di ko dégg ci ay ay ay ay xew-xewi tiis xam ne kon nag jot na lool donte musa musa dañ di eh, jaadu dellu ci yàlla nag ñaan tàll suñ boroom yërëm gi yërëm jaam ñi tax mu santaane bis bii mu ko santaane it ñëpp wuy nañ ko ci nam ko bëggee it mel ne am na mi am na am nañu dal ñëpp toog lu penku ñëpp na ci seen seen liggéey xëyee ko fas ko yéene yendoo ba ngoon loolu nag di loo xam ne lu yaas la def naa musam ci yoonu murit bis boo xam dañ ko wateel xasida dong dong dong ngir jàng ko alxuraan xasida yendoo ko loolu mi mi ngi door a am waaw loolu nag lépp na xam eh, dafa tegtal kilifa gu mat kilifa eh, nga xam ne sa lu jot lu nekk rek la saa bu nekk xam na la jaado xam la la la la war mu santaane ko gannaaw bu ci jiitoo ba noppi kon jàpp ne rafet nañ jot lool rek di ñaan di def tawassul ci suñ boroom mu jaare ci li jeexal mboolem mbas meeg jafe-jafe yeeg xat-xarik yëpp fasal ko moom ci bopp mu yàgg fi lool yàgg suñu bon def kii maan ci ak dundam yàgg ànd ko wér ba lim yéene naal naal ko suñu léegi lépp mu àggale ko ci coobaram ak kàttan te lépp nu bokk ànd ak moom waaye suñu bon jaare fi itam lépp luy jafe-jafe lépp luy xat-xat ci réew mi ci jullit ñi eh, eh, suñu boom jeexal ko tàkk waaye indi naataange indi xéewal nawet bi ñu tàbbi nekk nawet bu bu bu bu sotti coleet ma lépp lépp doy sëkk benn gàllankoor bañ am benn yàq yàqu bañam am loolu ñu ngi ko ci ci ñaan bu baax a baax ndax bis la ba njëriñ boo xam daal bu bu mat a teew la mu taxel tey nag ñu ngi koy def ci àdduna sépp ñu ngi ko def ci France Amérique foo dem ci àdduna ñi ñi nga fa daje di ko defee nii facilement ci ndigal li lool nag yaakaaru na lool yaakaaru na ndax la ca daje ci ay nit yàlla lamiñ yu barkeel bi mu ñaan rek sunu boom mën naa mën na mën naa nangu kon daal ñu ngi tax ñu baax a baax ñaan yàlla sunu boom sottal lépp te nag liñ ci ñaan lépp sunu boom nangu ko yàggal fi amul ndax yàggal fi njabootu si Tuubaa yëpp eh, yéen yëpp ak bak Seex Xaadim wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu